asalaamualeykum wa rahmatullah waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tous les téléspectateurs et les internautes di leen nuyu bu baax a baax a baax waaw ma bëgg a ñëw indi sama contribution ci euh, maîtresse de homme marié dëgg la on a des choses à critiquer parce que am na ci yoo xam ne vraiment baaxul parce que am na ci comportement ak langage yoo xam ne c'est pas joli rafetul te nit ki même boo nekkee acteur am na rôle yoo xam ne bu ñu la ko joué loo waroo ko parce qu'il arrivera un jour où tu seras père de famille ou mère de famille te am na yenn yu rafetul yoo xam ne boo ko joué tu auras à le regretter moo tax nañ koy rafetal te surveiller waat langage bi gën ko corriger malgré loolu nag am na ci ay njàngale yu rëy rëy rëy am na loo wax à propos de Cheikh ci li ko laal la wax ne ko kee moom a saaga rek mu gëm ko xam nga dañu toll ci àddina boo xam ne nit ki lu la nit ti wax ci nit ki bu ko gëm jusqu'à preuve du contraire il faut toujours vérifier l'information surtout en matière de co-épouse wujje yu bari dañuy ñëw ni ah mooma woo saaga ma wala tase nañu xew sàngam wax na ma ndàngam fekk du dëgg dañ ko inventé pour euh, destabiliser l'autre loolu na ko góor ñi di xam borom kër yi nañuy xam loolu ak n'importe qui entre xaritoo ak lépp lu la nit ki wax bul ko gëm il faut toujours avoir des réserves vérifier ndax loolu am na parce que loolu wujj yi dañ koy defante de di waxal seen moroomu wujj loo xam ne dara dara amu ci rien que rek pour bëgg a déstabiliser ko ak mu xoloog jëkkëram mais man de je trouve ko loolu euh, rafetul te euh, aawa warul mel noonu parce que wujj moom euh, bëgguñu ko mais kenn mënu ko bañ parce que yàlla moo leen ko may kon nag bu ñëwee na nga diñ ànd ak personalité ànd ak fulla ànd ak fayda ba nga xam ne sa wujj du la yeb bu ko may dara lum lay yebee parce que yow mi aawa jiitu am na yoo xam ne des bassesses yoo xam ne boo ko defee dañ la yeb parce que bu ñu demee ba découvrir ne yow li nga doon wax dara du ci dëgg mais kooku dina la yeb sa jëkkër dina la yeb sa wujj dina la yeb te yooyu amul benn njëriñ am na ay ay ay ndëgg sërëx ay yenn yuy def yoo xam ne nit ñi nañu concentré wu ci seen sëy ak lu baaxal seeni doom au lieu de topp kujje gi ba nga xam ne du ñu tàllati sax seen jëkkër te daray àddina jaru ko kujje yàggul mettiwul boo ko woyalee oyofalee rek euh, am sa fulla am sa fayda am personalité bu lijjanti keneen ki yow melal ni yow rek yaa fa ne gis nga loolu soo ko defee dund sa dund dund sa dund ak say jëkkër euh, éduquer say doom yem ci loolu yow doo am dara lu lu lu la metti mais bu fekkee da danga bëgg a déstabiliser l'autre di teg ay plan lu nekk nga def ko pour pour kooku jóge fa yooyu c'est pas joli et c'est pas digne Euh, ci ci ci aawa aawa yi nañu am fulla nañu am fayda nañ dolli seen fulla ak seen fayda ba leen ñaareel yëpp benn yoon ñoom loolu ñoom rek ñoo ko mun a liggéey parce que ki ñëw moom day ñëw avec ses moom tam bëgg la déstabiliser mais il faut jamais entrer dans leur bu ñëwee indi defante wala mu bëgg a indi yooyu nga won ko ne man maa la fi jiitu maay sa mag munoo wax ba jiitu ma munoo ma fi jëlee mais ci kaw fulla ak ci fayda mais pas ci ay sew ak di def ay ay. claque ay di wax yu amul yooyu day ñàkkal fulla aawa day ñàkkal fayda aawa Marème tamit def na loo xam ne dina ko coûter cher loolu ça lui servira de leçon dina servir de leçon képp kuy seetaan série bi xam ne góor bu ñëwee bëgg la da ngay régler def ak moom lu normal mais am na loo xam ne boo fa jaareek moom bés bu ngeen sëyee loolu daf lay topp foo toll dañ la koy xase moo tax xale jigéen ñi tam nañu régler toog fa ñu war a toog ba ñu fekk leen fa takk leen fa mais am na euh, ndoxaan gu ñaaw woo xam ne bu fekkee ne séq nga ko góor gi même bu la takkee après am na foo xam ne du la fa teg te moindre faux pas rek mu ne la ah yow de yaa def nangam wala yaa def lii loolu aussi naka xale yi jigéen yi di di di di calculer di ko sóoraale bu baax a baax a baax ngoro dañ koy rafetal parce que ëllëg du añ du reer mais lu mat a sédd la te mariage neexul sa euh, n'est jamais toujours rose en cas de rek góor gi dina la ne ah lii nangam nangam te loo ci def ci ngoro gi ci lu ñaaw daf lay toppaat ba ci sa biir ménage loolu na ko xale yi xam waaw yenn yu vulgaire yi nañ koy éviter nañ koy éviter bu ñuy jouer tamit dëgg la c'est un film mais nañ éviter langage vulgaire yi ak yenn summeeku yeeg yenn affaires yi parce que loolu tôt ou tard daf lay topp daf lay topp parce que tu es appelé à te marier tu es appelé à avoir des enfants surtout jigéen ñi góor sax moom mun nañ ne góor la mais jigéen am na loo xam ne boo ko defee dina la topp te mun na yàq sax sa àddina te les gens sont méchants am na loo xam ne bés boo fa accéder tey à un certain niveau dañuy génnewaat les archives te léegi avec euh, l' internet il faut faire très attention tout est archivé loo fi def tey rek ëllëg ça va se contre toi loolu aussi naka xale yi di xam même bu dee un film nañ waxante dëgg nañ ko jouer mu rafet langage yi nañ ko modéré même am na yenn langage yu vulgaire yoo xam ne rafetul ci jigéen surtout une sénégalaise buñ la ko joué loo bu ko def waxal langage bu yiw wax lu yiw ah même bu dee rôle bi rôle lu la wala dara mais nga tu tu nga nga def un langage très kii langage bu sensé langage bu baax boo xam ne ku la dégg du la si yëpp loolu aussi may ciy bàyyiloo xel xale yi bu baax a baax a baax waaw di yem foofu ba beneen yoon di leen remercier bu baax di nuyu ñëpp.